yéenekaay bi bu Médina bi tar ci ñoom coono ba ma nga ci hébergement ba ma nga ci seen restauration ba mu di seenu lekk ma nga ca wàllu transport ba boole ci ki leen a yóbbu leen Arafat te seen heure jotul ñu bari ci ñoom ñoo ngi wax ci yéenekaay bi ne ñàkkoon fu ñu dal tax na ci mbeddi Médina ya lañ doon taxawàllu bëccëgu démb gi yëpp ci digg naaj wu tàng jër as tuuti la tibb defal leen ko ci barket tegal leen ci aw dogu yàpp ngir beñe bi lañu ko kal ngir mën a am luñ def ci seen biir ci biir yéenekaay bi di l'observateur kàddu ñaxtu yu bàyyee ci ujaaj ñu di xam le ne xiif nañu fa mar nañu fa aji màkk ren gi ak la fa xew bokk na ci xibaar bu bi ci Vox Populi mu di ñetti doomi Sénégal yoo xam ne foofee ca màkk fa la faatoo fot fot tàggalewul mbaam noppam ku ko weddi xoola li ñu suur suwaane moo xew démb ci assemblée nationale jëf yi xale dëgg journal bi nee nañu dimanche ca cité kër góor gi ñoom lañ doon sàkk ñu libéré leen yéenekaay bi nañu ca la coow la jollee saagante yi takarnaase waxante yu ñaaw li mel ni tulleeg male ci biir assemblée nationale bi député yi bi ak député yi ci opposition bi ku ci nekk ci ñoom nàkk sab kurpañteye taxaw bëgg a soppi assemblée nationale bi ab arène Sud Quotidien gis ne la xewoon keroog ci cité kër góor gi ba leader yu yeewi askan wi ne dañuy dem yeewi ju Ousmane Sonko tëbal blocus ba am ba taxoon ñu jàpp ci ay député loolee la député yu yeewi askan doon yeggale ci assemblée nationale Sud Quotidien dem ci ba dañuy xibaar ne député yi ñu jàppoon keroog dimanche Sonko ginnaaw 24 ñuy def commissariat central mujj nañu leen a libéré journalisé ko di ñu ko dëggalal ci xëtamu njëkk Samba Dang Bakary Diédhiou Alphonse Samb ak Cheikh Thioro Mbacké di ay député yu parti Pastef mujj nañ leen a bàyyi nañu leen bàkko par di Mamadou Moustapha Ba ministre finance ak budget kàddu yi mu yëkkati démb ci assemblée nationale ci kanamu député yi kàddu yi mi ngi riir daanaka ci mbooleem yéenekaay yu xëyandool muy enquête yéenekaay nañu diñu xibaar ne ba koppar di Mamadou Moustapha Ba nee na projet de loi de finance initiale ngir déwén ñoo ngi ko natt ci milliards maanaam juróom-ñaari junniy milliards Soleil national dolli ñu ci ne Mamadou Moustapha Ba dolli na ci ne ci fukkeet ak ñaar yi budget bi dafa ñettate jóge na ci milliards millions jëm ci milliards direct ci su tudde ko budget record Le Quotidien gis ci budget bu yaatu bu Mamadou Moustapha Ba bu ñu ko méngalee weesu taux de croissance économique bu toll ci 12,4 pour cent 2024 élection présidentielle yu 2024 yi ba léegi ak laam-laamee gi ci am ci yan candidat ñoo cay bokk ak yan candidat ñoo ca dul bokk Walf Quotidien xëy na ci seppi ñeent ñoo xam ne seenu bokk ci yooyu la élection présidentielle wóoragul muy Macky mi coowal troisième mandat du fi am topp Ousmane Sonko mi kenn xamagul fan lay mujje ak yoon ak Khalifa Ababacar Sall Karim Wade yi seeni mbir leeragul li leer ba leer journal Tribune nee nañu moo di ab confrontation dig bëjoo ci diggante Macky Sall opposition bi mënut a ñàkk te wax waxi troisième mandat bi Macky Sall di ruumandaan nag moo nar a xam bu taal bi ñu tourné dem ci sunu làmbu xooli fa ndénkaane yu daw yaram yi fa Gaston Mbengue xëy def yëral xët mu njëkk yéenekaay bi Gaston Mbengue nee na ci coma ca la ne woon yaakaaroon na ne dafay paralysé yàlla moo ko dimbale ndax toog na juróomi weer yoo xam ne mënut a dox le Don King de l'arène di Gaston Mbengue tëje ay waxam ci ne dafa moy waaye malaakal mawti jàppoon na ci loxoom ba pare jëmoon ak moom yowmal xiyam abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim